mbokk yi siifur 5M TV fii Sénégal dal leen ak eh, jàmm ci xibaar ki nga xam ne rek moo di secrétaire Cheikh Bara Ndiaye bi nag yëkkati ay kaddu yu doy waar lool ginnaaw oto bi nga xam ne rek Cheikh Bara nag daf koo gaare woon fa nga xam ne rek moo di ca buntu këram ñu rek fekk ñu taal ko eh, ci ay boori 3 heures du matin ñu taal la nga xam ne rek moo di oto bi moom nag bàcci mi nag di xam ka yëgle di wax ne rek loole nag eh, nekkul lu bees ndax kat Cheikh Bara Ndiaye yàgg nañ koo tooñ yàgg nañ koo menacé moom mi nag may nga wax ne sax day jot li nga xam ne rek moo di appel yoo xam ne da koy daal di jot nag ñu koy woo di ko menacé jàpp ne rek Cheikh Bara Ndiaye la ñuy waxal moom mi nag di bàcc nekk koo xam ne rek dafa jege Cheikh Bara njaay lool di wax ne rek Cheikh Bara Ndiaye nag lii nekkul lu bees ca moom parce que nag yàgg nañu yàq li nga xam ne rek moo di alalam yàgg nañ koo tooñ parce que nag soxnam nag mës naa génn sax yor otom dem fa nga xam ne rek moo di ci benn restaurant rek gaare oto ba ca buntu ba waaye ginnaaw ba nga xamee ne rek daan na noppi nag ñëwaat rek fekk ñu bënn la nga xam ne moo di pono yu oto yi moom yëgul ne benn yoon sax la ñoo bënd nga xam ne moo di pneu yi dafa dugg rek di dawal di sentir ne oto bi nag dafa am lu ci nekk ginnaaw ba nga xamee ne sax daan na ñibbisiwaat rek ñëw rek di xool oto bi nag si la gisee ne oto bi nag dañoo bënd la nga xam ne moo di pneu yi lool nag nekk mbir mu doy waar moo xam ne rek kii di bàcci moo ko daal di xam xamle eh, nekk koo xam ne rek dafa jege Cheikh Bara Ndiaye lool yëkkati ay kàddu yu doy waar lool di xam xamle ka yëgle di wax ne jamono ji nag Cheikh Bara Ndiaye nag li ñu koy teg nag jamono ji nag daan na métti di ko menacé di yàq li nga xam ne rek moo di alalam ngir rek kàddu yi nga xam ne mu ngi koy yëkkati saa bu nekk rek di ko jëme ci li nga xam ne moo di doxiinu réew mi di Sénégal tax rek jamono ji nag mayu ñu ko jàmm mayu ñu ko salaam moom mi nag ma ngay xamle ak yëgle di wax ni rek oto bi nga xam ne dañu ko daal di taal jamono ji nag police moo ngi def enquête ci mbir mu ni mel ngir rek xam kan moo def jëf ju ni mel